alhamdulillahi wa salla abada ala allasi bihi lana alhuda abada sayidina muhammadin wal ali wa sahbihi dawina walil wali laqil lisaani waxlulan minhu lonqad wajcalhu dakiran wa shakiran abad wajcal kalaami rashidan wa murshida wa fikrati nawir wa qalbi arshida anta allasi allamta luqman alxikam faliyah bilmustafa xayra shiyam assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh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 cité ouvrière parcelle numéro 31 téléphone 77 712 44 71 wala 77 633 77 ci ñu bëgg a bind seeni doom wala ñu bëgg ay leeral ci daara ji ndax tàmbali na te ñu fas yéene andil xikma bu amati solo tukkee ci sunu yaakaar Serigne Touba Xaadimu Rasul mu tege rek ci njàngale mu am solo moomee mu daan jàngale te daan ko jaar ci ay tomb ak i rëdd ak misaal Sëriñ Tuubaa mas naa woote ba mbooloo mu bari ñëw mu ne ñëw leen ma yee leen ci li nit am dal di tomb ñeenti tomb dal nit kat yent yi rek la am muy boppam ak i ak alalam ak jëfam dal ne boppam bii bu tawatee ba xàmmeetul jong mu ju rafet ak ñam wu neex ñàkk na boppam ay bokkam a fa sës dal na bokkam yooyee kat buñ ko taxawee taxawoo ca tawat ja ba jébbal ko boroomam ñàkk nay bokkam alalam a fa sës alalam joojee buñ ko ca fayalee ay boroom la ca des ay donoom doon na ko ñàkk na alalam jëfam a fa sës jëfam jooji bu dee lu baax kero looy tàggoog naqar tàbbi ci bànneex ba faw bu dee lu bon kero lay tàggu bànneex tàbbi ci aw naqar ba faawu wal iyaazu billah loolu nag mooy alquran dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg kon Sëriñ Tuubaa am njàngaleem mas génn alquran ak sunna si yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa wax ak kenn mbaa mu jataayoo kenn lu dul ne jàngal na la yàlla jàngal na la tawxiid jàngal na la ragal yàlla jàngal la jaamu yàlla jàngale la itam àdduna nga xam noo fi nekkee ndiir si nga fi nekk mas nay jàngale itam ci tomb yi mu daan def sëriñ bay jaxate ñëw fa ànd ak ab xaritam xarit ba nag jàngale mi sëñ bi jàngale dugg na ko duggin woo xam ne tax na mu ne sëriñ bi jox naa la aw sàll aw sàll mooy aw fas sëriñ bi daal ne wool leen ma ko ma jox ko sàll wu gën wi ma jox ba ñëwee mu ne ko ñëwal ma jox la sàll woowu boo ko wàccul dana la céppee la àjjana dal di tomb ñetti tomb daal ne ko sàll wi kat mooy wii mooy li mat a def ak li matul a def ak li ëpp a def daal ne ko li mat a def mooy jaamu yàlla ndax moo lay jariñ àdduna di la jariñ àllaaxira ne ko li a def mooy fo ndax du la jariñ dara àdduna du la jariñ dara àllaaxira ne ko li ëpp a def nag mooy mooy yàlla ndax moo lay teg gàcce gàcceeg àdduna di la tegit gàcceeg àllaaxira wax nañ ne ba mu waxee loolu tom bu mujj ba da koo tibb sànni ko fu sori kon sëñ Tuubaa kat mi ngi noonu mhm. jàngale moom yi mu daan jàngale nañ ci ngoy te nañ ci bàyyi xel te xam ne loolu moo ni moo ni jëriñ àdduna moo ni jëriñ àllaaxira ku la wax leneen nag ci sëriñ tubaa loolu dafa daan jàngale ak njub waxu la dëgg daana wax ne àjjana joo xam ne kat loolu neex def loolu neex wax amut fi man iñaanewu ma leen ko nag waaye koo gis feneen nit man ngaa dem wuti ko waaye fii fi man amu fi te boo gisee la mu daj gis li yonante bi sallallahu alayhi wa alihi daj gis doomi boppam ya lañu daj nga xam ne ni ak yërmandeem jëmewu ko woon ay doomam ci ak njub ak tege ci aw yoon ak sonn ci àdduna sonn ci jaamu yàlla nga xam ne kon keneen ku ñëw bëgg a bëgg noppalu wala mu bëgg a topp bànneexam topp bakkanam ba noppi nag am ci li Sëñ di joxe wala bu ëllëgee mu am ajjanaam ah day wax li ko neex tey def li ko neex waaye Sëñ Tuubaa di jàngalewul loolu te tegu ci woon kenn itam te tegewu ci woon kon nag nañ ubbi sunuy xel te ubbi itam sunuy xol te jéem a tege ci ak jub jéem a tege ci siraatal mustaqim giñ na ne giñ naa ne dara du jëriñ nit ëllëg bu wàccee ci bàmmeelam lu dul ak njub tallaahi day sayid fon shaxs waxada inde xulul ramsi si wala xudaa kon nag nañ lu baax ñoo ngi santaat mbokki taalibe yépp